départ la. départ la bi nga xam ne daf ñuy yóbbu ci xeex bi nga xam ne. injustice bi nga xam ne teg nañ ko liggéeykatu collectivités territoriales yi ak liggéeykatu santé xeex boobu moo ñu tax a jóg moo tax ñu ne dañuy jóg xeexu parce que dafa am injustice. injustice bi nag dafa commencé ci salaire dañu yokkal ñi béy ñële or que ñi ñu béy importance bu ñu am ci liggéey bi duñu ko jox sax ëpp ñu ñi nga xam ne ñoom lañ béy ku wax liggéeykatu santé ku wax liggéeykatu te euh, collectivité territoriale nga xam ne dañu am dayoo ci biir dëkk

à l'opinion locale surtout parce que grève bi dal na leen bu baax mais du suñu coobare c'est parce que dañu teg li nga xam ne nanguwuñu ko mu doon une injustice ñu bëgg ñu faj mais suñu sago rek du ñu teg benn naqar population parce que population bi si lañ bokk suñuy mbokk lañ suñuy nawle lañ mais bu ñu délee lenn teg ko sa kaw li nga am comme arme rek ngay ngay ngay ngay wone te lu ñu wax wa doxe dox nañ ko def nañ ko mais nanguwuñu si topp moo waral ñu dem à la vitesse supérieure ñu def ci ay marche